alhamdulilahi rabbil alamin ma doore buñ fayee ma doxal buñ fayut it duma ruube assalaamu aleykum de mooy ma doore buñ fayee ma doxal saddi way cey bu so baali maa kayey aca kon teewlu leen duñ naxa saale tey ma bakkati mër kañ kafe boori kajoori sibtu cerno la baay baa di seex abdu kuduusi kon xanaa ki ma jëm ñépp xam kan la buuri sell gaag yaru gaa fuuf xet ca ba xuuri kii teral yar ko muy sang buuri waaju gis ko ba dem dootu def luñ ko doore kii li yàlla dafay sax ci moom wax ko du wóori ndax bëggul ku di wax ay mbiram cay gile góori daawa yaf bari jom mu ku du nit ku ñëw fa ba dem bàyyi fo bàyyi di mbóore mi kon nanu booloo di ñaan tey bañ a réere sun na ko buur sax ci suróori réew mi kon nanu booloo di ñaan tey bañ a réere sun njariñ na ko buur sàmm sax ci siruur yi mi jël gile góor def ko nii yaa di mën tur wa xamagul kan la mooy abdurahmaani xam-xamam ba mu yor kaare kaar selli cosaani yii taxut ba mu xeeb kenn kat abdurahmaani jaamu yàlla la def jumtukaay lim saxadaane bépp noon bu ko dëgmal si moom abdurahmaani ay waxam bariwut lut ku jug ngir na ba jaane diine bu boobaa nga gis abdurahmaani yàlla rekk ko ñor faalewul tagg wu foori mustapha ma ñu la roy abdurahmaani sun sëriñ baja tuuba kile wa mu jaare bi cala aw sibtuhu abdurahmaani ñooña ñooy idolam bamba ak rakk jalaane seenu dik fala doore di wi abdurahmaani cerno mbër la du mbër yit mu ndaw bul ko laaj përëfam moo ngi cerno mbër la du mbër yit mu ndaw mbër du ko daane bul ko laaj